kilifa yi ngànk liggéey bi di junnatul liman nazamahu ci tukkey nemmeeku yu am solo yi ñuy def bi ñu ko tàmbalee ak léegi gannaaw Guédé ñëw nañ ci beneen gox muy quartier maam Aswalo 3 nekk diggante Ngiraaneen ak Guy Ziar file nag bokk ci gox yi nga xam ne nii ñu ngi dund ay jafe-jafe ci ndox mile jéego yi nemmeeku yi kilifa yi def nag du leen lu dut ñëw massawu waaye nemmeeku ñenn ci askan wi nga xam ne ni ñu ngi dund ba léegi ci tartar yu metti ñeel ndox mi lee kon euh, ñu ngi ñëw ci turu junnatun ci turu kon kilifa yi nga xam ne ñoom laa ko seqal yëpp euh, ñu ñëw tey nag fii quartier Soxna Asta Walo 3 euh, ànd ak équipe technique bi nga xam ne mooy équipe technique bu junnatun muy ñoo xam ne it wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant ñoom Baye àlla ak ñi ko àndal ñëpp nga xamante ne équipe bu yaatu lañu mais doon ñoo xam ne duñ sonn bi ñëwee fii Euh, gis nañ ne ñëw ci terrain bi dafa yamul ak dara gisal sa bopp li nit ñi di dund ndax recensement bi macha allah sonn nañu déployé nañu la commune euh, dafa mel ni euh, gouverneur jaar na ci préfet ñu déployé ay équipes yoo xam ne def nañu recensement bu yaatu yoo xam ne lu ëpp deux cent personnes la ñu déployé woon waaye nag Touba dafa dafa doon loo xam ne neexul a moo tax ñun ñu gis ne ginnaaw ay réclamations foofu dina am. ñu ne kon ñun nañu fexe ba am ay dé déployer ay équipe de contrôle équipe de contrôle yooyu nag bi ñëwee ba sur le terrain gis nañ ne fii li fi nekk ci ay kër yoo xam ne rek njaboot gi munuñu faa toog waaye dañoo génn mën nañ téeméer téeméeri kër yoo xamante ne boo ñëwee ba dugg fa xool xam ne kenn mënu faa des ay daara it am na ci loolu nag boo xoolee gis ci recensement bi am na ci ñoo xam ne ñëwuñ ci da ngay daal di gis ne kon ay manquement la. gannaaw jafe-jafe yooyu nga xam ne nii kilifa yi gisal nañ ko seen bopp fii ci quartier Soxna Astou Walo tax na nag kilifa yi daal di ne dinañu daal di jël nu mu gën a gaawee ay motuwaay ngir indi ay saafara ci nekkin wi nga xam ne nii jamono yi lenn ci askan wi ñu ngi koy dund. yooyu nag ñun foofu ñu jël ko en compte nga xam ne onze mille cinq cent ménages yi ñu jëloon daal nga xam ne yées na ko tuuti onze mille cent cinquante à peu près léegi da ngay daal di gis ne nit ñi loru da koy ëpp ay kër. te ñun pas-pas bi ñu am mooy amuñu fu ñu yem naan du ñu boddi kenn it ndax kuy jëf te jëf ji nga jëf jëfaloo ko sa bopp bul ko xatal da ngay gëm ne sëñ Muntaxa dafa njaboote ñëpp loolu moo tax may soññaat euh, murit yëpp ñu xam ne am na ñoo xam ne dañuy nekk ci jafe-jafe te loolu dañoo war a ànd ak ñoom ba ne liggéey bi mat na ñoo ngi jottali cantuk sëriñ bi kon gaa yaa ngi indi seen ndimbal moo xam ceeb la moo xam diw la moo xam it seen wërsëg ñu ut ci indi ko fii ku ko ci def ku ne bu la fekkoon nga le dina tax nga le bu la fekkoon nga am lu nga amul dara it di ñett ñetti ngir dimbali sa mborom sa mbokkum taalibe di nga di nga gën a am ku mu fekkoon nga barele it ah te te barkeelul ndax lu barkeelul it boo ko yoree tuuti di ko jëriñoo as lëf waaye dootul sori kon la cay def barke mooy da ngay dimbali sa morom moromu mbokk taalibe ak sa mbokkum jullit askan wi nga xam ne ni ñoo féete fii donte ñu ngi dund ay tartar terewul benn yoon ñu wone ak dal ak muñ akuk taalibe loolu tax na nag kilifa yi yëkkati ay cant ak ngërëm waaye di leen ñaax xam ne li lépp rek ndogali suñ borom la. leneen li ma ci dolli mooy di santaat waa Touba ci jom ji ak pësteef bi ak yitte ji ak nangoo muñ am na ci ñoo xam ne sax da nga yëkkati ndimbal. moo xam cent euh, téeméeri kilos yi pepp yi nga xam ne dañ leen koy jox mooy cent kilos ceeb yi ak ki nga xam ne valeur bu soixante quinze mille francs la à peu près am na ñoo xam dañ leen koy jox ñu ne lii de mun Muntaxa jox ñu nangu nañ ko ci sunu xol waaye defaat nañ ko addiyee sëñ Tuubaa nañ seen ñeneen ñu ko yeyoo loolu lépp am na ci res ñun dañuy daje ak moom waa junnatu kon loolu ak cant war na ci ngir ñu xam ne lii du dara lu dul euh, faslihoo bayna axawaykum maanaam jéem a raxatal suñu diggante ndax loolu la ñu Sëñ Tuubaa digal loolu nag képp koo xam ne dangay gis koo xam ne yaa ko tane. di sant itam sëñ Jaw sëñ Lamine Jaw mi nga xam ne dañ ko fay fekk muy ñuy ay ñoo xam ne seen daayira la yor muy daayira xasaayit waaye takku di ànd population yi. bërëb bi nga xam ne moo di quartier soxna Astou Walo 3 jafe-jafe yi tar na lool yenn ci kër yi nga xam ne ni sax tabax nan ko seeni borom dëkk fe bàyyi ko yeneen yi ba tey ñu ngi fay wéy di dëkk. jàpp nañ ne nag mën na indi gàllankoor ci seen kaaraange jëm ci seen dëkkuwaay loolu moo tax nag commité bi ginnaaw jéegoy nemmeeku yim fi am di woo nag autorité yi ngir nu ñëw nag taxawu leen nu mu gën a gaawee. gis nañ fi ñoo xam ne dañ am kër yoo xam ne da ngay xool xam ne bi koy tabax ka tabax kattan la ko tabaxee mu doon kër goo xam ne bu mucc ayib la waaye nekkate dañu dafa nekk ci ay yoonu ndox moo tax am na ñoo xam ne seen miir kër bu daanoo ndox mi day ñëw fekk ci kër yooyu gis nañ ci kër yoo xam ne kenn waratu faa ne danger lay doon loolu itam ñoo ngi ñaan autorité yi rawatina waa sapeur ñu ñëw defaat benn visite de proximité pour mën a recenser loo xamante ne c'est des maisons inhabitables kenn waratu faa dëkk su ko defee loolu en synergie ak junnatun ñu xool nu ñeen di def ñooñu dañ leen war a yóbbu feneen ñu ne fa le temps ñu defaraat barab yi ndax euh, napp bi bu yéegee tasanteeg ndox mi ëpp leen doole fos yi yi affaissé wu moom fii kenn xamul nu mu toll donc defe naa daal yëf yi mën naa xam ne euh, dafa laajaat mobilisation pour jàppale population yi. askan wi nga xam ne ni ñoo féete foofu. donte ñu ngi doon dund ci ay jafe-jafe ba jamono yi ñuy wax ak yéen waaye nag jéego yi nga xam ne ni comité bi amal na ko fi ngir nemmeeku si leen dalal na seen xel. ndax li ko waral li ñu dal ñun quartier bi mooy dañoo taqaloog euh, Ngiraaneen taqaloog Guy Siyaar les quartier Maam Assa Walo nekk ci diggante bi Ngiraaneen daa ëpp tur fii Guy Siyaar ëpp aw tur fii léegi nag ñun loolu moo ñu kepp ndax fan yëpp waa koñ bi dañ ñu sonal maak sang jaañ chef de quartier bi moom it ku jàmbaare la nangu cee sonn ak suñ Aboo Mbàkke moom it ku baax la fu ñu dugg ñu ngi ciy ànd ak moom. jéego yi comité bi li mu def ci population bi mooy xel mu dal. ak xayawiyee la def ci ñun mm-hmm. ñu amaat xel mu daal bu baax ndax dañoo xam ne ñu alhamdulilah ndax suñu aajo faju na mm-hmm. parce que jëwriñ jii fi teg tànkam mm-hmm. suñ borom da koo musal ci lu bëri kon nag ñu ngi ciy am kontaante ak mbégte di ko ñaanal fii ko suñ Muntaxa samp yàlla na samp bi gën a dëgër ni bu aatu ba na ko suñ Abdou Lahad sampe woon ca darajee Rasulaay kuréel gi ba àjjana rek fii nag day firndeel rek ne jafe-jafe yi ba tey mu ngi des fii ci dëkk bu sell bi donte mbokki jullit yi ak taalibe yi ñu ngi wéy di indi seen i ndimbal ngir génne leen ci jafe-jafe yi terewul nag benn yoon kuréel gi nga xam ne ni da koo samp ngir ñu taxawu leen di soññ bu baax a baax askan wi ñu xam ne liggéey bi des na